naan leen da ngeen a yaakaaroon ni yéen rek laa am ci ñu ci ñu mën a def mobilisation bu rëy. Hmm. di ma jaamu di ma màggal di ma kañ. déedéet yërndu leen ñu yërndu gis waa Arafa xam nga Arafa nag moom wax nañu ne euh, mooy jotaay bi gën a nuru jotaay yowmal qiyaamati jotaay yi ci àdduna bi yépp hmm. amul benn rassemblement bu toll ne Arafa ak bu nuroo ko Arafa ci àdduna bi président baadoola miskin bi nga xam ne dañ koo sarax paas euh, euh, euh, menee baru maçon mm-hmm. góor jigéen ñëpp voilà sax ñooy bokk benn tenue mm-hmm. xam nga tenue bi lu muy lu muy symboliser. càngaay càngaayal da ngay duggaale ci sa biir bàmmeel. ñëpp yam ala saidin waaye au même pied d'égalité doo xam ndax kii mooy président bi doo xam ndax kii mooy planton bi doo xam ndax kii mooy chauffeuru Ndiaga Ndiaye ba ala saidin waahidin foofu ñoom ñëpp delloo mbir yëpp yàlla subhaanahu wa taala ma ngoog mhm, jërëjëf ma ngoog yonent bi salaay salaam nee na lii mm. yàlla dafay wàcc ba ci asamaanu benneel naan seetal ma lii rek jaa'u min kulli ibaadi jaa'u min kulli fajjin amiqin sha'shan ghubaran yatlubuuna maghfirati fa inni ghafartu lahum walaw kaana zunubuhum misla zabadil bahri yàlla di wax naan xoolal sama jaam yi rek fii ñu toll amul fenn ci goxi àdduna bii rek foo xamante ne jóge amul ko fa ñu fa jóge rek fu ne ñoom ñëpp fii ñu taxaw fii nii man rek la ñuy yaakaar taataan sama yërmande rek ñii daal seen bàkkaar yi donte dafa toll woon ne su peppi suuf yi donte dafa toll woon ne du si géej gi. Mm. doonte dafa toll woon ne di wax ne jéggal naa leen seen i bàkkaar. Mm-hmm. ak képp koo xamante ne ñoom bi ñu taxawee foofa ñaan nañu yàlla pour mu jéggalaale ko. ku ñu fa ñaanal ku ñu fa ñaanal. maanaam yow tey boo demoon ñaanal yu ñun waalu Sénégal ñaan nga day bu ma demoon yéen laay njëkk a ñaanal plateau euh, allo Sénégal te bëgg naa fii ak déwén nga dem waay amiin waay ah, waay amiin waay dinañ ko ñaan ñaan 10 lañ ko amiin waay mooy mooy bés bi nga xamante ni ku mhm. yonent bi salaay salaam nee na ku ko woor ah xam nga mooy doon samedi bii di ñëw. samedi bii di ñëw mooy taxawaayu arafa incha allah mm-hmm. la journée. loolu mm-hmm. jaajëf fajar lañ fay dem fa la ñuy nekk ba ngoon. ba mm-hmm. jant so. ñu soog a wàcc euh, montagne bi. yonent bi sa salaam na koo xamante ne nekkul ca arafa. ajiwul ma nga këram wala ma nga réewam. woor ko yàlla subhaanahu wa taala baal na ko bàkkaari at mi mu weesu ak bàkkaari at mi mu dëkkmal. mais ñi fa dem di di kii nag di. Euh, gis naa si image bi ñu ñu doon nekk di di snap foofu loolu c'est. waaw loolu loolu wax naa ko fi ne loolu nee naa. mu ngi nii par exemple. loo loolu loolu loolu loolu mën na ñàkk. parce que euh, euh, fii. ki naan souvenir la. parce que fii ku fa dem. li ngay def kenn rek nga ko war a wan. mu yàlla subhaanahu wa taala mais di filmer sa bopp di envoyer sa waa kër maa ngi nii taxaw ci Arafa maa ngi nii ci a gis ngeen ma ni may doxee Safa mar wa yow yàlla ngay yàlla ngay ajal wala nit ñi nga bëgg a wan li ngay def loolu wax nañu ne bokkaale bu ndaw la di def loo xamante ne jaamu yàlla la mais di ko wan nit ñi ngistal boobu waaye yow Oustaz Makka nag Makka nag Euh, màkk dafa rëy daal. Hmm. tey xëy na nit ki mën na ko def juste en guise de souvenir. pour denc ko ndax xamul ni ëllëg. dana fekkee wala est ce que dana demaat. def ko nga denc ko ci sa téléphone. Hmm. mais gis na man gis naa ñoo xamante ne fu ñu taxaw ci bu ñuy soog a yegg si ñu ngi nii ci aéroport Jidda yegg si nañu. daal di film yónnee seen waa maa ngi nii ci maqaama Ibrahima. maa ngi nii diggante Safa ak Marwa di yónnee. yow yàlla ngay wan li ngay jëf wala nit ñi nga koy nga koy wan mm-hmm. Mm-hmm. yàlla ñu na ana aghna shuraka an sharikin mm-hmm. man amila amalan ashraka ni fiihi ghayri taraktuhu wa sharikihi yàlla nee na bokkaal associé yëpp maa ci gën a doylu maa ci gën a gaaw a gedd loo xamante ne maa ko moom boo ma ko boolee ak keneen kooku àcca des man génn naa lii jëf la joo xamante dañ ko war a def di ko di gaaral yàlla subhanahu wa taala gis tal gis tal si alpha boobu avant man may ñëw sama question oustaz parce que dégg naa ne samedi bi euh, dañu war a woor pour ñu daal di euh, yàlla baal ñu suñu bàkkaar mm-hmm. donc jigéen moom yàlla xam ne ne dafa daal di am nattu Hmm. chaque euh, fin du mois dañuy daal di gis suñu règle tey xale jigéen yooyu nga xam ne samedi boobee dañuy daal di euh, euh, gis seen règle amoon nañu yéene amoon nañu yéene woon naka la ñu mën a def ba yàlla tamit jéggal leen seen bàkkaar subhanallah koor gi nga xamante ne mooy kooru farata sax bu la ci fekk yàlla ne la teggil naa la ko lii di kooru sunna rek kii kooru kooru ngàtt nga la rek du du waajib du lu mhm. war mhm. tiyaaba ju mag mi ngi ci nag waaye nag du force mhm. bu la dalay neex nga def mu ne euh, euh, bu la neexul bul ko def jigéen koor gi nga xamante ne sax kooru obligatoire la farata la bu tolloo ci période yàlla ne ko bàyyi rawatina nag koor goo xamante ne naafila la rek. waaye loo xam ne dañuy baale bàkkaar oustaz xam ne boo ko wóoree. jour boobu ci profité waa promotion yi ñoom kee na. waaw ah. ñuy genre yi nga xam ne dañoo war a promotion. waaw yéen yéen a ko ci promotion rek yéen a ko yéen a ko ci sa xol rek. <laughs> Uh-huh. Ah, niyatul mu'mini niyatul mu'mini ablagu min amalihi. <laughs> Uh, jullit ab yéeneem. yonent bi salaay salaam nee na jullit yéene moo ëpp doole jëfam bu fekkee ah. mënuloo waaye nag ca dëgg dëgg dëgg dëgg ah yéene naa ko. bëggoon nga ko ci sa xol. waaye nag yàlla xam ne ne am nga gàllankoor yàlla day fay yéene bi. Mhm. yéene dafa xool niyyatul mu'mini ablahu min amalihi. Mhm. yonent bi nee na jullit yéene moo ëpp doole moo gën a jotale euh, jëfam. jëfam xëy mhm. na ñu enchaîner question yi. par contre man j'ai trois questions mais day concerner li nga xam ne tabaski bi euh, alors première question bi mooy oustaz luy tabaski. Hmm. tabaski day mooy feet gi nga xamante ne mooy mooy ñaareelu feetu jullit ñi. Mhm. ndax xam nga islaam moom ñaari feet rek la ñu am muy xeejul euh, fitri wa xeejul adha muy muy bésu korité mhm. ak bésu tabaski islaam amul beneen feet. Mhm. màggal du feet gàmm du feet. tamxarit du feet. laylatul qadri du feet. benn du ci feet islaam ñaari feet dong la am. muy tabaski bi ñu dëkk ma lu nekk ci fukki fan ay fukki fan yi ak ak korité ah, loolu moo di loolu moo di tabaski mooy fukki fan ci weeru weeru weeru zul xijjati mhm. weer wi ci arab zul xijjati la tudd mooy douzième mois mooy dernier mois wu calendrier euh, égyptien calendrier musulman euh, nga ne ak lan moo ko waral waaw li ko waral euh, bu ma la ko tënkalee daal ci wax bu gàtt pour bañ a dugg si détail yu bëri ndax heure temps bi duñu ko may mooy doom ju déggal way juram ba exécuté ndi ndigalu way juróom jaral ko mu joxe ba bakkanam ak soxna su déggal boroom këram ba fils unique bi mu am gisul beneen doom taxawul ndax dana am beneen doom wala déggal borom këram tax mu ñu fas ko nar yéen nar koo rend ci kanamam mu joxe ak borom kër boo xamante ne yàlla rek lay déglu juboo ak boroomam jaral na ko mu tër doomam bi nga xamante ni si le fils unique qu'il koo xamante ni bi mu koy am wax nañu ne am na quatre-vingts ans wax nañu ne am am nañu wax ne am na téeméeri at ak ñaar fukki at xale bi di judd bi xale bi di amee treize ans yàlla ne ko rey ko kon xam nga lan lan moo ko waral doom ju nangoo déglu way juróom ba mu jaral ko bakkanam ak soxna su déggal borom këram ba mu jaral ko sacrifier doomam te du ne te du ne mbu du ne mba ak bàyyi boo xamante ne yàlla moo ko jëral lépp gën a lépp lu mënta moom fas yéene tër doomam ren kii mooy Ismaïla mooy doom ji kii mooy Haajara mooy ndey ji kii mooy Ibrahima tënkal naa la détails yi ñuy wax yëpp tënkal naa la ko ci boobu alors sama troisième question parce que un bi ak deux bi nga jëlandoo léegi troisième question gis nañ ne xar Euh, rek la ñu bari di rey mais am na ñoo xam ne amuñu kàttanu ak doolewu rey li nga xam ne mooy xar donc ginnaaw amoo xar ci tabaski bi lanal lanal lan nga war a mën a rey yan xeetu rabu àll nga war a mën a rey. ñeenti ñeenti rab yi du rabu àll de. Mm. du rabu àll de da nga naan da euh, nga juri kër gi. jur ok al anaam la ñu tudd juri kër gi. d'accord rabu àll kenn du ko kenn du ko tabaski. juri kër gi nag ñeent dong lañu. wala non gàtt mooy xar ak bëy waaw mais boo ne jur gi rek nag dafay dugg gileem dafay dugg mm-hmm. mais boo nee gàtt mooy xar ak bëy nag aussi mën nañ ko tabaskee nag mën nañ ko tabaskee mooy ñëw en trois mooy ñëw en troisième euh, position mm. xam nga xar lañ la lañ la rendiloo na doon am xaaf am xaaf mooy kuy mu rëy mu rafet moo xamante ni kenn tàpp ko maanaam mën na tëbu am doom mhm. boo ko amul nga nga ut tàppaange xar ko amul nga ut tàppaange nga ut euh, xar mu jigéen mhm. mooy troisième choix bi boo ko amul nga dem ci zukurul maahis yi zukurul maahis yi mooy mooy ab sikket boo xamante ne kenn tàpp ko mën na tëbu am doom ko amul mooy bëy boo amul mhm. euh, bëy ngay soog boo amul sikket ngay soog a ñëw ci tàppaange bi boo amul tàppaange bi ngay soog a ñëw ci bëy bu jigéen mooy sixième choix bi boo ko amul ngay soog a dem ci euh, yëkk yëkk mooy nag boo xamante ni mën na tëbu waaw boo ko amul nag ngay soog dem ci tàppaange euh, nag boo ko amul ngay soog a dem ci nag bu kon moom mooy neuvième neuvième boo ko amul ngay soog a dem ci gileem tukkal gileem tukkal mooy gileem goo xamante ne mën na tëb boo ko amul na ngay soog a ñëw ci. ne euh, ko amul xar bu xar boo xamante ne xar bu jigéen wala kii est-ce mën nga dem ci ay gileem ay nag. waaw boo ko amul rek boo boo ci amul boo ci amul rek mën nga boo ci tëbaskee rek am nga fi toll yow yii mu la wax nii boo ci tëbaski rek am nga tëbaski ginaar mënut tëbaski ginaar du tëbaski ñeenti xeet yi mooy ñeenti xeet yi ñuy tëbaskee xar euh, bëy nag giléem mm. waaw loolu yëpp soo ko amul la boo ko amul wàcc na la mm-hmm. boo ko amul wàcc na la mm-hmm. laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha mm-hmm. mm-hmm. yàlla tegul benn bakken lu moom du farata mais boo ko na la boo ko amul ci jour bi te bëgg nga ko te daal sacrifice boobu daal bëgg nga koo def ci at mi te am nga yaakaar ne euh, lendemain tabaski di nga am xar wala le deuxième jour après tabaski wala troisième jour loolu la ñuy wax ay yaamu tashriqi ñetti fan yooyu foo fi rendi rek am nga tabaski. écharge boo ko ndax yonent bi dafa wax ne. may ma ma daaneel tuuti. kullu fi jaaji muna manxar wa kullu ayaabi tashriqi zabax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muna moom boo fa euh, euh, quartier bi tudd muna. Mhm. boo ko xasee ba dugg. su euh, waxuñu la ne obligatoirement ma ngay ñëw ba ci xeer bi ñu doon bëgg a rendee Ismaïla rek pour mën a rendi boo xasee bu nekk dugg ci biir dëkk bi rek ah comme ñu ne affaire bi géejaweel amee stade du Barry c'est pas c'est pas obligatoire il faut da ngay ñëw ba stade Amadou Barry boo xasee ba dugg Géejawaay rek foo rendee rek am nga am nga am nga kii waaye nee na ñetti fan yi topp ci ginnaaw tabaski aussi foo fi rendi ba tey rek am nga tabaski ñetti fan yooyu nag bu soo te amuloo ko wàcc na bon lu mu damaa bëggoon wax ni so euh, daf ne soo ko amul ma ne c'est-à-dire bon soo ko amul parce que euh, euh, am na ay situation yoo xamante ni soo ko amul bëri na imaginer par exemple ñu ne ginnaaw suba la tabaski wala suba la tabaski mais yor nga lu mën a jëlee jëndee xar yor nga deux cent mille wala trois cent mille comme njëgu prix xar ñu jël mais yow nga de telle sorte que xaalis bi na nasax na par exemple ñu ni suba la tabaski waroon nga si jënd xar mais dem nga ko dem nga ko dem nga ko ji wala nga naanee ko euh, voilà wala quelque chose comme ça loo xamante ne daal yow da doon def bii ba xaalis bu perte est-ce que mën nga wax ne tabaski gi wàcc na ma. parce que aw yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne képp koo xamante ne am na lu mu tabaskee am na ko possédé na ko. Mm-hmm. moo ko moom te defu ko fa laa yàquru ban na mu sallaanaa yonent bi nee na kooku at moom dàq naa ko bu mu julli si bu mu ñëw si sama jumaa mm. Mm. pour nga xam ne kon garaaw na kon boo ko amee rek da nga ko war a def. lépp xaalis nag taat koy tabas jënd koo xaru tabaski. wàcc na la amuloo ko kenn lépp loobu la. Mhm. amuloo ko kenn kenn du lépp jënd xar. bu mën nga lépp jënd xar mën nga lépp jënd xar waaye nag bot euh, euh, euh, yenn la boo xam ne yow. yaa bëri na ñu koy def de loolu oustaz. dama lay wax rek yenn la boo xam ne yow. yaa ko yenn sa bopp mais yàlla yenu la ko. Oh, boo ko defee it nag. Euh, euh, tabaskee ko. tabaski bi valable na waaye nag yàlla tegul teguloo ko mais mais tànk que fayoo ko wala. boo wala tant que fayoo ko wala. tant que fayu loola. non c'est-à-dire mën nga leb ba pare jënd xar. mais ba tabaski gi paase mu def un mois deux mois trois mois mais fayoo bor bi. par exemple loolu moog boor yëpp a yem. Mhm. moog bor boo leb lu ci lu dul. tabaski am nga tabaski wala amoo tabaski sinon. man kay lépp demaat nee naa la boo ko boo xaalis tabaskee ko am nga tabaski. Mhm. léegi nag la ca des nag ñàkk a fay bor. bor boo fayoo ba ak tabaski ba dara. Ah, pour man dafay impacté ci tabaski bi kooku léegi problème bu ah, ñàkk a fay bor la léegi. bor boobu ak beneen bor boobu boo boo lépp takkee ko jabar wala xam est-ce que boo boo lebee xaalis takkee ko jabar boo fayul bor bi dañuy tas sëy bi. <laughs> baa ñu nangu jabar ji. baa ñu nangu jabar ji. benn la rek. mais mais affaire mais mais mais. sëy bi wala c'est différent. c'est pas différent. xam nga la moo tax c'est différent oustaz. c'est pas différent. moo la moo tax c'est différent hmm. bii nii Mm. affaire yàlla la parce que tabaski gi sa diggante ak yàlla la non mais xaaral rek jabar mu ngi nii dafa présent xam nga li ma la wax tabaski gi c'est-à-dire c'est quelque dafay ñëw passé nekk sa ginnaaw waaw ah, ceet gi alors que jabar alors ceet gi ceet gi day ah, nga comme ñaa passé passé la gi di ceet mais ceet jabar ji mu ngi fi ba léegi exemple bi ma la jox bu duggul ci sa beneen exemple dootu la doy léegi est-ce que jabar ah. boobu nga leb tàkk ko hmm. doo ko consommer tant que doo ko te tàkk nga ko ba. wala boo fayul wala boo fayul dañ naan la dañ naan la sëy bi tas li li gàtt daal ba gàtt ba gàtt mooy. kenn te kenn tegul yàlla tegul kenn. muy leb pour tabaski. mais nag bu fekkee leb nga tabaski tabaski bi valable na. waaye nag. du caagi nag fekk fayuloo bor ba tabaski bi voilà voilà non non loolu bor la nag léegi bu dox sa diggante. ak ak ak la te da nga koo war a fay. alors Kajoor ñu bàyyi la nga. bon man laaj boobu noonu laa amoon peut-être euh, si je sais pas loolu peut-être avis personnel am lay doon. Mhm. Euh, tabaski bi nga xam ne nit ñi dañ koy yennu ba euh, affaire u xar yi ñi trois cent mille cinq cent mille un million xar. Mhm. Euh, alors que ci pegg bi amaana am na ñoo xam ne. amuñu sax njëgu njëgu njëgu njëgu njëgu yàpp pour xar mhm. yow nga takk sa kër xar mhm. Mhm. loolu aussi euh, ban xalaat nga ci am peut-être xam nga xam tabaskee xar bu baax bu rafet su ko ko man loolu aayul alxasan euh, di sëtu yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax dafa wax ne amarana rasulallahi salallahu alayhi wa sallama an natatayaba bi atyaba bi atyaba ma najidu wa an nalbisa ajwada ma najidu wa anna daxiya bi ajwada ma najidu Xasan euh, xam kenn ku ne xam na ne Ali ibn Abi Talib mooy baayam euh, Fatima az-Zahra doomu yonent bi mooy mooy ndeyam wax na ne ah man di dégg naa sama maam mu daan wax naan bu ñuy génn ci bésu tabaski bi nañu sol yére yi gën a am valeur ci suñu yére yére bi ëpp valeur ci sa yére nag ko sol ah bu ma nee am boo ma nee am bu bees sax moo gën boo ko amul nag seetal sa valise ba ca gën Euh, nee na nañu euh, seet suñuy parfum ba ca ëpp qualité nañu ko xeeñoo nañu tabaskee gàtt bi ëpp qualité ci gétt bi kon ki nga xamante ni il possibilité dem jënd xar bu rafet kooku kenn du ko ko tere mhm. mais nag bu fekkente ne euh, maanaam xar moomu mën na ko am ci quatre cent mille cinq cent mille mu dem di jënd xar moo xamante ne xaru un million ca dëgg-dëgg la gënoon ci moom président Diomaye Faye joxe na exemple ren de dégg naa ñaari xar la jënd benn xar benn bu ci nekk cent soixante mille ah muy trois cent trois cent vingt mille ah dégg naa loolu la jënd ñaari xar yi xam nga lan lay jàngale dafay jàngale rek sa à dire mën nga am xar bu baax la ca des un million boo jëndee jëlee quatre cent mille yi jënd ko am nga benn cousin wala am nga benn dëkkandoo boo xam te ni wóor na la ne. at mu jot. du am bu ngeen rendee ba day dugg man gis naa ñoo xamante ni. Euh, ci bon ci banlieue bi laa dëkk xam nga dafa bari ñoo xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ay saako la ñuy yor du dugg ci kër yi may leen ma yàpp nga xam leen xam fi ñu dëkk imaam bu nag ma bu leen ma fàtte de nag ma bàyyi xel de moo tax yaa oustaz dañu naan sax dañu naan waaw ci yàppu tabaski bi daf baax na sax nga génnee ci joxe si déedéet loolu kay mooy li yàlla wax ah fa kulu minha wa at'imu al ba'is yàlla nee na lekk leen ci waaye nag na ngeen ci génne aussi une bonne partie ngeen jox ko miskin yi nga xam ne amuñu xar hmm. waaye xaru un million dégg naa am na ku dafa am ku jënd xaru vingt millions tabaski bu vingt millions hmm. démb laa dégg ñu koy wax ma leen kooku foo déggee kooku Pikine laa dégg ci hmm. gaañi rek ah vingt millions oh, oh, man de wóoruma xaru xaru kase ma ma ne leen ma leen euh, Euh, xar moomu day yàqu ba du ñor. ma ma ma ne leen ki ko jënd. <laughs> ndax catu nañ ndeyam liggéeyul. wala xaalis loolu xaalis bi da ko sàcc. dafa am jeexal rapidement euh, Aïcha may ñaari question yi donc première question bi mooy euh, est-ce que képp kuy liggéey rek am salaire boo xam ne mën na jënd xar tu es obligé de jënd xar boobu mooy première question bi. képp ku ko am. te mën ko. waxuñu képp kuy liggéey am salaire am na ñoo xam ne seen salaire yi matul jëgu xar. Mhm. Hmm? kon bul ko tënk ci salaire. Mhm. am na ñu fay ak cinquante mille. dëgg la non ne hmm? képp koo xam ne mën nga jënd xar ci sa salaire. xam nga tey mën nga liggéey. waaw man koo jënd ci sa salaire. képp koo xamante ne jullit la. Mhm. nga mën ko. mën na ko. gor la. Mhm. ah euh, majeur na. góor ak jigéen a ci bokk yam man war na ko def. mais xar daan na jël cinquante mille. alors beneen bi ah, mooy mooy ñun bu ñuy naaw. est ce que am na 1964. non man man dama suñu très bien xar boo xam cinquante mille. waaw mais léegi mën amatul. Mhm. am na am na ah. léegi fi ñu toll woo demee boo demee di jënd mbote bu daw mais pour yar ko soixante mille soixante dix mille. Mhm. mbote laa wax mbote. pour finir oustaz beneen question bi mooy euh, dafa am benn année. sama xar ñu koy rey ma yërëm ko di jooy ndax le fait que maat moom ñu nekk ci guddi gi ma koy raay nekk ak moom. Mm. léegi ñu war ko raay le matin ma am tristesse boobu am yërmande boobu. ñu ne ma <laughs> carrément genre euh, xar buñ ce que mën ngaa déglu sama question. ndeysaan voilà mu ngi laal question boo xamante ne. c'est moo tax du gaaw a comprendre te doo d'accord ak kenn xam dégg mm. voilà ñu am benn euh, kenn ki doom ray ne ma xar kenn du ko kenn du ko yërëm jour tabaski parce que ñoom bu ñu juddoo dañuy ñaan ñu ray leen bésu tabaski est-ce que loolu dëgg la jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah inni la asbaxu shaata fa arxamuha fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa shaatu in rahimtaha rahimaka llahu marratayni am ku ñëw ci yonent bi ne ko. sa accent neex na. macha allah alxuraan kay moo ko dégg moo ko naan macha allah. am ko ñëw ci yonent mais mais boo expliqué ba pare nit ñi comprendre ñu moom bon. waaw doo dégg mu expliqué. yow gis nga yow dimbali mu ngir yàlla ak yonent bi moo tontu ñu. parce que yow perturbateur nga. du comprendre du déglu di directement ci écran bi laa la koy waxee. non di jaay arabe yi neex te après nit ñi kenn. waaw doo déglu bu waxee ci arabe da koy traduire ci wolof. gis ngeen gis ngeen gis ngeen gis ngeen perturbateur c'est un perturbateur. Aliou Oustaz ñu ngi lay déglu allez-y. xam nga ñëw ci Yonent bi salaay salaam ne ko man daal. Mhm. je suis désolé yaa mhm. rasulallah man daal bu may rendi xarum bu may rendi xar. Mhm. damay lox. parce que tellement que dama koy yërëm dama koy yërëm ndax damay xalaat euh, borom bakken la ndey la walla baay la walla doom la walla bàyyi na fi njaboot euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne est boo ko yërëmee benn yoon yàlla yërëm la ñaari yoon hmm. foofu dafa yonent bi jàngale même mooy même rab yi nañu am yërmande ci ñoom bokk na sax ci li nga xamante ni yonent bi santaane na ko mooy booy rendi xaddu chafrati maanaam paaka bi na nga ko daasa daasa daas essayé ko essayé ko ba mu wóor la ne c'est vraiment tranchant bu ko defee boo ne trar trar rek nga noppal ko mhm. mais bàyyi xa xaddaasi goo xamante ne naan xeeti xeet xeeti xeet muy yëqu waa di yëqu ba mu jigee tàngooru pa weñ gi mooy dagg yaram yooyu bi neen loolu bu ko def mhm. ko def fal yuxidd ahadukum sufratahu wal yurih zabihatahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na daasal paaka bi ba mu ñëw nga teelal nga teel a noppal euh, euh, euh, jaamu yàlla bi moom it yàlla la di mhm. yàlla moo la may rek mais moom it borom kon nag boo ko yërëmee loolu la dal yàlla yërëm na la ci deux fois yàlla nee na kon ñiy toroxal jur yi di leen xëcc di leen dóor di leen toroxal am nañ. Euh, man laa yarxamu laa yurxamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku dul yërëm yàlla du ko yërëm. Mhm. jërëjëf yow am na dernière question. rapidement bu mu doon question euh, perturbation. Euh, damaa bëgg a xam lan nga si kii rek daaw tabaski daaw France hmm. dafa am benn benn waay boo xam si benn immeuble la dëkk. léegi jour tabaski ci immeuble bi dafa rend xar bi léegi hmm. bi mu rendee xar après voisin bi hmm. dañ ko boole yóbbu ko tribunal hmm. parce que moom dafa rend xar bi ci immeuble bi après ñu tëj ko euh, dama lay laaj ñooñu ñu ko tëj ñooñu dañ leen ni yàlla da leen lakk wala mu demee noonu ku yàlla di lakk moom yàlla moo ko xam en tout cas ay yéefar lañu duñu ay jullit seen réew nga nekk. Mhm. gis nga l'islam lu suuf. amee France am na ay musulmans tamit. waaw mais du c'est pas un pays islamique quand même. mais Sénégal tamit du pays. li li ñu fi waaw mais d'accord mais ñun Sénégal on est à quatre après. Euh, la France n'est pas en cinq pour cent musulmans. non loolu. si France dix pour cent yooyu. Oh, oh, oh, dix pour dix pour cent ils sont quoi. Hmm. saa à boo demee. ci biir moo xamante ne loolu kooku eh, eh, bu ma fontoo kooku kooku kooku loolu mu def moo ko teg boppam. parce que amoon na possibilité. Mhm. réew moomu dëkk. mu yónnee fa xaalis bi ñu jëndal ko xar rendil ko foofu la dëkk. bu fekkee France la dëkk français la. comme France la dëkk nag te état. dañuy tere ku rey dañuy France dañuy tere sax rendi France abattoir rek ñoom dañuy am abattoir. ñoom dañuy am ay la ñuy reyee. Ah, merci yow Sall. jaajëfal nañ la mais bu loolu moo fay dox. defar defar loola. fii kan fii fii kenn du fi tere kenn mu rendi ci. mais waa Europe loolu lañuy def Pape Malick. c'est pas exigé bàyyi kooku man oustaz jërëjëf jaajëfal nañu la ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi ñu yëkkati jotaay bi. <laughs> Pape Malick léegi nag bu may ñëw dama koy préparé moom spécial indiwaale samay xeeru raay. Mm. di ko ko ko xaaj parce que moom comme moom moom day bëgg a jaxase carte gi bàyyi si yi ngay def. tabaarakallah euh, kon nag euh, mbir mi daal mi ngi noonu. Euh, yàlla na yàlla nangul ñëpp. amiin euh, ñaan ña am na nag kàddu gu ama am solo. moom laa bëgg a tëjee boo xamante ne baax na di ko wax ci fukki fan yi rawatina bésu arafa. laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent bi sallallahu alayhi wa nee na man ak yonent yi ma jiitu woon li ko dalee ci aadama ba ci isa ibnu maryam mm. baat bi mooy baat bi gën rëy ci baat bu ñu wax kon nag dee leen bari lu ngeen koy wax ci al ayaamil ashri mhm. muy fukki xam nga fukki fan yi dafa rëy lool ba yàlla sax wàcc ci alquran wal fajri wala yaalin ashrin wa shafa'i wal wëtri yàlla di waat ci fajar ci mm. boppam lay waat parce que fajar mm-hmm. wala yaalin ashrin maa ngi waat ci fukki fan yi mm-hmm. fukki fan yi mooy lan mooy mooy teru teel euh, bésu tabaski ba ci ah, maanaam weeru tabaski ba ci ba ci fukki fan yi mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn bés ci at mi 365 jours yi boo xam ne nit ki dina ci def jëf yàlla subhaanahu wa taala kontaan cee kontaan ba fay ko loo xam ne bu ëllëgee day mel ne montagne Himalaya noonu la koy waxatee ah hmm. ah wala arab de Hamalaya la ñuy wax ñun mm-hmm. waaye mos naa ko wax ñu ne ma Himalaya Himalaya noonu la amul benn bés ci yeneen bés yi ci des trois cent cinquante cinq jours yi booy jëf-jëf mu rëy ci yàlla ba mu fay la ci pay bu rëy bu toll ne fukki fan yi mm. kon nag gaa ñi ñu ngi ci dix jours de promotion yoo xamante ni lu ci waay mën ci def lu baax rek saraxe jàng alxuraan dox ak mbokk seeti ku feebar naafi la te it nag fukki fan lañ yoo xamante ni lu waay soxla de ñaan ko ci de ko ci ñaan ci fukki fan yi mooy fukki fan yi gën a jegeñ yàlla subhanahu wa taala li ci des nag koor koor jërëjëf yow Oustaz jaajëfal nañ la bu baax a baax merci beaucoup ba semaine prochaine incha allah. di la ñaanal tabaski jàmm. Hmm? mu ngi noonu Pape merci beaucoup tàggatool. <laughs> waaw eh, a tàggatool ndax émission bi jeex na. ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ma woon dama waroon laaj rek. ñu ngi sant ñëpp mais laaj yi jeex na. ah di leen gërëm. émission day am fin tamit. <laughs> <laughs> merci Pape Malick Kina merci beaucoup. merci Aïcha bonne fête de de la Tabaski bon week-end. à demain bon week-end si le vendredi la. ah kon à mmh, demain incha allah moom léegi jeudi mooy vendredi si moom. ah waaw man man moom certainement je vais vous dire. Euh, euh. bonne fête de Tabaski. parce merci que beaucoup. Euh, je serai pas là demain. mais je vous invite à ma kermesse. dañuy <laughs> ñëw incha allah kermesse c'est pour samedi. Euh, ngeen ñëw ci concert bi dimanche bi kermesse bi continuer de plus belle. incha allah y aura Dip Doundou Guiss y aura euh, Vigie y donc euh, avec la soirée aussi boo xam ne juste après la kermesse moom mooy am soirée boo discothèque bo xam ne tout le monde est invité toute la population dakaroise a invité ce sera au collège Notre-Dame du Liban et moi je souhaite à tout le monde. bonne fête de Tabaski. merci Kadior merci Kadior. merci beaucoup à toute l'équipe euh, de la matinale jaajëfal leen bu baax a baax merci à la régie à 10h vous aurez le flash d'information 11h ngeen am euh, Sista Maria et sa team dans la mi-journée l'avant-première foofee itam euh, dañuy gën a yaatal li nga xamante ni moo di actualité bi waxtaanee ko ak seen ay gan bu ko defee rek ngeen des ak ñun programme bi dafay daal di wéy quant à l'équipe matinale ñu jox leen di daje ba lekk incha allah jaa